di kontaan ci ñëw bi nga ñëw seet si ma ndax lu rëy la ci man ndax bi ma xamee gi yow dafay yàggut te mënoon ngaa teste ba xam xadi mooy ban nit doog a ñëw ci man waaye dangaa bàyyi sayte yëpp boole ci programme boo xam ne sax man ma ci ma jaral la jóg nga ñëw seet si ma kon loolu dama la ciy sant di ñaan nag comme ñoo ngi ci Touba gu sell gii nekk fekk sëñ tax te lenn lu dul lu juba di taxunoo jóg dëgg rek lan teg suñu liggéey bii liggéey bii ñu doon sonn démb ak bëkki dem ñoo ngi ñaan yàlla njariñ li yàlla boo ci génn boo ci mucc nan jël lépp root ko teg ko say loxo ndax doy nga nu ci wóolu nan la ci yaakaar nan la ci kon ñoo ngi lay dénk sunu bopp di la dénk mbooloo mi nga xam ne man topp nañ ci ñun maa ngi sant kilifa yi nga xamante ni si danoo bàyyi seen yitte depuis 6 heures ba léegi di fi ñow ndax sëñ Cheikh Ndiaye mi amul jot de bu ma ko déplacé woo rek am na fu mu ma teg tey boole maag ñoo xamante ni si jotaguma sax seeti leen ndax man lu daje fii rek damaa tase sama mbooloo di teste sama bopp ba pare doog a yootu ji ca àll ba doog a ndax mboolem lu fi tase tey nga gis ko sama koñ la tey juróomi téeméer yooyu ma rempli fas naa yéene rempli waat yeneen juróomi téeméer yoo xam ne yeneen maire yu ma boot la waaye dama noonu du ma ko ci boole damay jël li nga xam ne moom laa am ak sama nit ñi dikk jox la ko pare doogu laa wutali ca biti waaye lii moom li ma mën a waat moom ci sama koñ bi la bokk amul benn bu ma ci dëggaan kon nag loolu maa ngi koy sante sama waa dëkk yi nga xam ne ñoom laa dëkkal di sant sama yaay mii di ko ñaanal bu baax a baax ndax doole ju ma am moo ma ko may ndax moom ma boot moom ma teete moom ma yiir moom ma bàyyi ma mën a dem ci nit ñi ba tax ma mën a am lu ma mën a liggéey dimanche bii passé leen séddale fii ci accès yi yaakaar naa bu ma juumul kees bu nu séddale nga lu mat 1 million boole ko bagage yi ñu ñu doon la woon fii tey luñ fi desal la waaye luñ joxe la ba pare kon tey bu nu demee ba ba toll foofu gis ku ni wax Boubacar mu ñew fasiyene no noo jàppale ñu bok ak mom dëkk bi bok ak mom gëm-gëm bi yaakar na ni loolu dina yom wallahi asim tànk yi boo ko yëkkatiwul woon ñëw ci man nit lima waxante ko sàmmantel te dee rek moma ci jël lool mom lu leer la tay lepp lo dégg ni khadim mi ngi ci bul ma ni nga ma waxon ci sa bureau mi ngi melni mom la mom la jakkal jàkkalawaat tay ju na nga ma woni ma Xadi lama dégg ndax nga su boba di nga xam ma def wala man dëkk tey tey ji damaa woo journaliste yi ma ñëw te yëguloo ko mbooloo mi fi daje woon boo fi ñëwoon di nga xam ne mbooloo ngi fi association yi fi dajaloon danoo fédéré wu mu nekk ñaar fukk benn yoo xam ne danoo fédéré wu nekk benn nekk benn association Laye Thiam jiite ko Laye Thiam mi la jox leetar bi di màggal sëñ Moudou Aïssa moo jiite mouvement boobu ñoom ñëpp fii la toogoon ñaari taw yëpp fi la leen fekk deux heures jot na ñu di génne fii dem fii te ñëpp ci koñ bi lañ dëkk nag koñ boo fa dëkkul mënoo faa toog ba yenn waxtu yi nga dem rawatina Touba gi xam teel a tëdd lan kon bu ma sañoon sama nit ñi ni ma la jébbale sama bopp nee naa la jébbale sama mbooloo mi fas yéene nga jàppale ma li ndax boo leen jàppalee doo leen rëcc ndax leer na ma ni di fii ma dox bii ma wër man ku ma ne watee leen ko danañ ko wate ndax ku ci am juddu man la kun ci jàpp man ngay woo kun ci ku ci am problème man ngay woo kun ci téye sa doom muy football fee sa bala nga am jàmm bala ngaa boo ko yëgee téléphone ba dàqe baa nga jël sa sa tànk ñëw ba ci man ma dem lijjanti ji kon nag tey suñu ñëw ñëw sant la ñu ñëw seet si soxna Khady Thiam di ko sant di ko gërëm ñun ni ñuy liggéeye da ngay ñëw ne bokk nga ñu ne laa ah, bokk nga nga ne waaw ñu ne la nii lañuy ñuy danga bokk fiis yaa ngi indil nit ñi wan ñu sa doole matul ñaari semaine mu wan ñu dooleem li ñu récupéré ci fiis semaine bi yëpp moom mooy deuxième sur surtout le Sénégal am na ñu demoon Bignona am ñu dem Casamance tey Touba fii am na koo xam ne dafa monté ñëpp moom mooy deuxième ci kuy doog a ñëw kon nag ñu ngi lay félicité di la won ne jéngu dafa xew parce que dafa war a xew jéngu dafa war parce que dafa war a war jéngu moo war a war tey Sénégal parce que ñëpp alku nañ bu ñu demee ba Sénégal am juróom fukki at ak ñett ci indépendance nit ñi mënuñu am lu ñu assurer seen dund mënuñu am ndox mu ñu naan bay rang di jël ay bidon di fanaan di xaar ndox xam nga ne am na lu baaxul ci réew mi bu ñu demee ba jeunesse bi amatuñu liggéey di jël gaali yi di dem xam nga ne problème am ñu nag li ñu am programme la ñu am programme boo xam ne tabaxaat Sénégal tabaxat Senegal boko ko def da ngay jël dëkk yu mag yépp nga defaraat bo buggee defar senegal da ngay defar dëkk yi ci biir all bi yépp en dehors de Dakar bu ci nga defar ko ba nit ñi mën fa tok liggéey bo defar senegal da ngay tracer plan d'aménagement du territoire jël Touba ne Touba lan mo fi war est-ce que yaakaar ngeen ne Touba. une université de classe internationale Warufi. fo foo xam ne képp kuy mottali sa jang ci arxuraanul karim fi ngay ñew ak dëkk bo mën a ak dëkk bo mën a muy dëkku arab ak dëkku africain ak dëkku asie képp ku jang ba watu arxuraan nga wara ñew nak nag ne damay motali sama liggéey fi nga wara ñew motali sa ñaan ben nga wara fexé daara ak li fi nekk ci ay serigne daara fi di jàngal xale yi di ci sonn ñenn ñi sax duñu feyeeku est-ce que yaakaar nga ne réew war naa mën na ne ku jàngi français ma gàddu la ku jàngi daara nga gàddu sa bopp loolu moo fi am loolu beddi la loolu parpar loola donc ñun dañuy fexe ba képp kuy jàngati Sénégal ñu jox la bourse bourse boo xam ne bii état bi moo la koy lebal mais ñu la ko ne du nekk edde dañu naan sa jàng boo duggee ci suuf école maternelle war a daara ba ba ngay pare sa jàng état bi moo lay lebal moo lay lebal lépp ñu investir ci transport bi investir ci internat yi investir ci bibliothèque yi investir ci université yi lépp boo paree sa jàng na nga fay fay bi mooy da ngay dem jàngale ñi nga xam ne jànguñu woon fay bi mooy da ngay dem fekkee liggéey yi nga xam ne dafa am njëriñ ci ñëpp nga ñëw bokk ci bu ñuy samp ay garab pour éviter désertification nga bokk ci bu ñuy raxas dëkk yi nga bokk ci bu ñuy def sécurité nga ñëw bokk ci ñetteel bi nag boo liggéeyee boo jàngee ba pare ñu assurer le stage obligatoire boo jàngee ba pare boo paree sa stage ñu dugal la contrat premier emploi six mois yoo xam ne da ngay liggéey par force ñu fay la par force boo paree nag nga ñefe sur le marché du travail boo liggéeyee nag li son ceer Bobu, ci ngay rembourser li la état bi lebaloon pour nga jàng lolou bu amé benn mère de famille dootul sonn pour domam buñu paré dinañu défar benn fonds fonds bo xamné bi bii ñu ngi koy woyé office sénégalais de l'artisanat. office sénégalais de l'artisanat 350 milliards lañ ci def par an Sénégal artisan yi ñom ñoo mëna indi croissance bu baax moy cordonnier yi mooy jaaykat yu ndaw yi mooy ñi nga xam ne dañuy dañuy ñëpp ñi nga xam ne seen loxo la ñuy liggéeyee dañ leen di financer ñoom it dañuy fay état bi day jël financer leen ñu fay. marché yi njaay meeg jënd mi dañuy def des marchés d'intérêt public tas ko ci réew mi fu ne ñu tracé fa marché marché yu rafet yoo xam ne bu guddee dañ koy raxas ba mu set tëj ko bu subaa ñu tegaat mu am place bu ñuy jaayee jën am place bu ñuy jaayee yàpp am bu ñuy fu ñuy jaayee fruits et boo ñëwee traversé ci marché yi booy dem marché da ngay toilettu léegi booy dem marché ak nawet bii ah mais dama too normalement booy dem marché da nga war a toilettu ba set sañce ba jet laj ko la ñu dugg ci marché bi jënd li ngay jënd ñëw sa kër Sénégal nañu yeew nañu jóg jàmbaar nag ñu mel nii Khady Thiam buñ ko amee dañ ci ngoy yow fii nga nekk nii garade bi nga am ci djengu bi moy grade officier grade officier moy sentinelle sentinelle ku meuna rassembler 500 personnes yow ya nek sentinelle yow sentinelle S1 nak té amul limite ca kaw rek ca kanam li ñuy wut nak diko ko pour Sénégal changer dañu bëgg bu changer mu nek njëriñu ñëpp njëriñu ñëpp nak moy njëriñu d'abord ñiko taxawal ñafeku ko lépp loo xam ne lii njëriñ la. ñëpp ñoo ko war a bokk te amul amul xaj ak seen jigéen ñi sonn ngeen xale yi sonn ngeen mais bu kenn xaddi li ci des bareetul juróomi at yi weesu lu ne gis ngeen ko wala sax ay at yi ci gannaaw kenn mënu fi taxaw yëkkati loxoom ne gouvernement bi amal na ko njëriñ boo xam ne bii yokk na situation bi dañuy waxante dëgg waay kenn amu kenn mënu ko fi waat kenn kenn mënu ko waat boo nee ci réew juromi at muno wat ne li day bésu tay ji li gouvernement moko def ba mu fexal ma juromi at yi di ñew nak ay <laughs> boo leen bàyyee amee <laughs> ey boo leen nguur gi juromi at yi xam nga yaakaarul len dara li ngeen jot am gas néew lañu fokati nak ma la ko wax de li ngeen xam nga ku ku xamul journal lu ñu def dañuy téye sa loxo mais ñoom non seulement ñoom seen loxo kenn du ko téye mais boo leen fi bàyyee yow dànk bi nga dànk bugg ko dugal sa gémmiñ moom la ñuy foqati ah yow ku naan sa ku naan sa pétrole naan sa gaz tere laa nga am ndox suba si ci ja ci ci dépense kii la jëm ceeb beeg li ngay lekk ndox bu ñu la doon naan ndox munoo am ndox Sénégal foofu lañ toll